cinquième combat de la soirée Sourna Habib Farkhat production tey samedi 23 juillet 2019 wala 2022 <laughs> waxul ma 2019 ca Covid ba setu falang la ak Boy Jason ñaari xale yaa ngi noonu Boy Jason moom lañ jàkkaar lool setu falang moo ñu won ginnaaw Boy Jason mii nag Adama moo fi daanoon caatu yaraax mooy defet bi caatu yaraax njëkk am ci làmb booy josoon mi moo daan setu falang lay jàkkaar lool doomi mbar jàngil bëre yàgg yàgg des na la ñam ah looy def nii ah da ngay orienté ya tàkk na mu leer neex waaye yàlla jàngay taw ba tey bàyyeegul walaay ndeysaan bu kenn taw bi yàq na ku may sa bopp loo am da ngay jël borom taw baa fa jaar. kii moo caatu yaax. jël bu rëy waaye la ma ca jaaxal mooy caatu yaax nee na ñoom ñaar ñoo bokkoon benn sëriñ mu daan dem ci sëriñ bi sëriñ bi di xóoyal ay omo di ko muy sangu. bi mu ñëwee ko daan. loolu ci ba mu daanoo gëmul ne daanu na. booy Joson ak sëtu Falang. ndeysaan mais bu ngeen ko takkul day dem de bu ngeen ko takkul day dem andil ko de bàyyi kii moo ko yóbboo moo ko yóbboo ci baabul ko jox baa ngi noonu waaw combat baa booy noonu booy Jason Boy Jason ak Satu Falang Ousseyn demal nga toppatoo demal andi Boy Jason ak setu Falang ñaari xale yaa ngi noonu Satu Falang moo ñu ginnaaw Adama xoolal Boy Diosone ay kombaam da daan gaaw xawma bii ndax nan lay def arbitre bi laaj na ay sixième Boy Diosone Satu Falang pare ngeen arbitre sifflé na li nga def de xamoo ko Satu Falang lii ngay def dañ lay dagg directement boo génnee te dangay ngay génn ndax tegtal la am na lu muy laaj am na lu muy laaj jox leen ko ko jëlal ki koy jox à waaw da koy jox mu sotti kooku après mu duggaat ci biir waaye directement kay dañ lay dagg directement la dëgër lii la defoon ba muy bëreeg Boy Niang loolu kenn dootu ko fàtte boy yow sëtu falang foo jëm dugal ca biir pare na dellu na ma nga jëm ca xare ba aadama moom satu falang doomi mbar jàngil bëre yàgg yàgg des na la ñam wallaay ndeysaan am na lu muy takk ca tànk ba arbitre da koy xoolaat ndax niin na wala niinul loolu suba la Fallou Ndiaye borom Ndiaye suba dina neex le 24 juillet loolu dafay neex nee na dañ koy fomp. bul ci kaf bul ci ree. bul ci kaf bul ci ree teel say ginaar jàpp sa bopp. teel say ginaar jàpp sa xam nga ne mën nañ laa jaxaseeg réew mi nag mën nañoo jël ginaar yi jël combat bi. <laughs> eey Mbaye Boy Diosone sëtu Falang noo gisee combat bi noo gisee combat bi xanaa ne fi wax yomb na de waxal baax na avertissement directement pour sëtu falan benn sëtu falan arbitre sifflé na Boy Diosone moom lañ moo njëkk daan caatu yérax ndaanaan bi Sëtu Falang moo ñu woon ginnaaw combat buy neex la daw na yooru yooru la def moom Boy Jason ana luy xew yàlla jaa ngay taw su ne Habib production la Habib Farxat production yàlla ji de yendoo taw ku dul may sa bopp lu la yàlla jox jëlal ba tax na taw bi bu kenn yàq na walaay noonu la demee maam jaara walaay ndeysaan Boy Joson à gauche plaqué mu bañ Setou Falang à Boy Joson à gauche ñaari xale yaa ngi noonu mi ngi rokkas ci suuf moom Setou Falang mi ngi ñam ñoom ñaar dara xewagul yéen ñu ñuy suivre ci Wassare Lamb TV walaay ndeysaan li lii làmb rek ko man suba tey muy taw Adama nga nekk fii aadama ku la bàyyi woon kër ga nga teg sa caayen di xaar la wala deuxième naan heure bi fan la toll ak làmb ja ku daan waaye jàmbaar ca waar wa jóg dóor waar moo la war moo ma war Adama dóor ci suuf sëtu falang booy joson dara xewagul fële ca stade Iba Mar Diop Petit Baye ak Iba mécanicien ñoo fay jàkkaarlool drapeau Papa Ndiaye Aïda Mbuub Serigne Modou ñaa def bi bu passé 5 tonnes mooy ñëw ak waa Sintor combat réew mi booy Joson setu Falang yéen ñaar bu ngeen jàppee bëre bi day tëju Joson sëtum Falang attention fàqat na ko dara xewagul Boy Joson sëtu Falang waaw dafari tax taw bee tax Boy Joson sëtu Falang doon na ko suuf lu mën a possible la soxna jaara parce que booy josan gis nga ko bi mu jàpp mën naa fàqate gauche parce que fi mu jàpp dafa dëgër aha noonu la demee añ na déclenché mbot da koy daan jël ba rëy na ee eh, surtout Abdourahmane Ndiaye falang bi boo ko defee danga koo war def boo ko deful danga koo war def wallaay ndeysaan kaay Seetu Falang ee eh, ma ngay jaayu xale baa ngi noonu Abdourahmane Ndiaye Falang ngay sa maam lii nga def boo ko defee danga ko war a def walaay boo ko deful danga ko war a def ma nga noonu jëlal booy joson ñëwal fii droite jël ko booy joson a ngi noonu bañ na de ma koy xool daanu na jël ba leer na jaajëf Adama